نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه شكرا يا رباه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 war a tàmbalee ci boppu aaya 58 muy jël wa tilkal loolu nag danoo bëgg jàng bi tey ñu leb ko ba tabaski ak jàmm tey ñu ñëw ak yenn ci maa yustafaadu min qissati alxadir wal muusa wa muusa min qissati muusa wa xadir lan lañu mën a jëriñoo ci qissa muusa ak xadir suñ ci paree incha allah dafa am question yu bari yu toogoon di xaar ñu mën cee am benn temps tontu ji lu bari incha allah su ko defee daa tëj dars bi ba Tabaski ak jàmm incha allah loolu tey moom mooy programme bi ndax su fekkee ni jàng nañ ak bëgg a indi xissa bi bu ñu ko daggee daanaka du bari njëriñ loolu moo tax rek ñu jéem a jël yan jàngat lañu mën a am ci xissa Muusa alayhi salaam ak Xadir alayhim ni nu ko junjee léegi waxe ko noonu yonent yàlla Muusa alayhi salaam kenn la ci ulul azmi min ar-rusul nekk kalimullah di wax yàlla waxtu wu nekk bokk ci yonent am décision yi xam ngeen ni Moussa yonent bu participer la ci islaam ak sunu diine ñun ndax gis ngeen li gën nekk farata ci ñun ginnaaw shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadan rasulullah julli la te julli boobu yonent yàlla Muusa moo ci tinu ci yonent bi yonent bi tinu boroomam ba ñu indil ñu juróomi julli Muusa moomu nag dafa dund dund gu barkeel am jaar-jaar yu bari daanaka néew na nga xool alquran juróomi paas lu dul danga gis yonent yàlla Moussa moom daal la waaja waxoon rek yonent yàlla muusa xaw naa yóbbu un tiers daanaka mënoo ubbi juróomi paas ci alquran lu dul nga fekk dund yonent yàlla muusa jaar-jaaram imma ak firawna imma ak Shuayb imma ak soxnaam imma mook montagne ba imma mook Haarun imma imma imma kon yonent yàlla Moussa yonent la bu am décision waaye bii dafa am ku Moussa di jàkkaar lool koo xam ni li tax ñu war a jàngat lu bari ci moom benn nitu yàlla la boo xam ni yàlla da koo xamal ñu koy wax al ilmu laduni al ilmu nag ki ko am du ko wootewoo woo te ilmu laduni mënta nekk bidaa ak xuraafaat loolu mooy première jàngat bi ñu jàngat ko ci ndax suñu jamono bi da ngay gis ay nit yu koy woote woo naan diw uutee ilman ladaniya da ngay dégg diw dañ koo jox dañ koo sol defe naa di koy dégg dangeen di dégg diw yàlla day wax ak moom da ngeen di dégg nit naan yàlla wan na ma te fekk ay gént rek lay gént comme ni ngay génte yonent yàlla Muusa ci banu Israil dafa dund dund bu metti ñëw na ci buxaari yi ak kudul buxaari xissa boobu mu nettali ne yonent yàlla Muusa benn bis dafa xutba waxtaan ak nit ñi bi mu waxtaaneek ñoom ba nit ñu bari jooy mu dugg ci xam-xam wax ci lu bari ba jooyloo nit ñi bi waxtaan wi pare muy ñibbi ndeke ña ko doon déglu am na ku yéemu ci moom kooku daldi koy dab ne ko yaa rasulallah ayu nnaasi aalam ne ko yow yonent yàlla bi jamono bii ñu toll kan moo ëpp xam-xam ayu nnaasi aalam bi mu waxee loolu fa qaala Moussa ana Moussa ne ko loolu kay jarul laaj maa ëpp xam-xam muy loo xam ne dafa mel ni vanté ba ko Moussa di def jubluwu ko ca waaye nag dafa am lu borom bi bëgg jàngale kon ñaareelu jàngat bi mooy kenn bu mu woote woo xam-xam ni man rekk maa xam déedéet loo xam-xam am na ku xam ne cell noppi kon xam-xam kenn du ko woote woo kenn du ko sës ci boppam soo ko amee rek incha allah nit ñi danañ ko xam noon yi nag bu leen neexee ne xamoo dara waaye ndax loolu tekki na xamoo dara déedéet ala kulli xam ji daal li ëpp solo mooy xam li sa borom waral ci yow nga di ko def ak li mu waral ci say moroomi mbindeef nga defal leen ko boo ci taxawee rek bokk nga ci boroom xam-xam yi fees la nga dell wala fees la woo dell amut solo li am solo mooy barke bi yàlla nañ ko yàlla defal bi Moussa ne man la te delloowul mbir mi ca yàlla yonent bi ne fa ataba allahu yàlla yedd ko ne ko ah, wax yu ko ne ko ah, <laughs> wax nga lu ëpp nag waaw wa ma utitum min al ilmi illa qalila borom bi nee na tuuti laa leen jox tuuti googee nag ñun ci suñu biir danañ ko ëppalante waaw danañ ko ëppalante ku nekk ci ñun xam nga ki la ëppale mbir mi jarul coow jarul di ëpp nangam di ëpp nangam waaye mbir mi moom ku nekk xam na ki mën bi mu ko defee comme Moussa dafa askanale mbir mi ci boppam yàlla nag ne ko Moussa inna lii abdan bi majmaci lbahrain huwa aalam mink ne am naa jaam boo xam ni ma nga ca fa ñaari géej ya dajee kooku moo la raw de ah ñetteelu tomb bi li ñuy jàng mooy ndeke Muusa la mu woote woo xam ci boppam ndeke am na ku ko gën a xam comme yàlla xam lépp nag yàlla wax ko ko ñeenteel bi Muusa ne yaa rabb wa kayfa lii bi kooku raw ma moom nan laay def ba gis ko nga jàngee ci ni ku la raw doonte xale la demal nga jàng ci moom loolu du gàcce xam nga tey lu rey nit ñi ñu bari ci nit ñi tey seytaane moo leen mën nanguwuñoo toog ubbi téere jàng nanguwuñ koo def ci xale nanguñ koo def ci keneen moom daal li ñuy mën surtout jamono bi nga xam ne dafa indi ak rëy ñu bëri nangootuñoo jàngi léegi daal ci whatsapp yi la ñuy jàngee ubbi téléphone ak toog rek déglu déglu déglu ba foog mi fees nga bis bu dara netul lu dul làmb ji sëgg bëri da nga xam ni mbir mi ndeke du ci whatsapp yi nekkul ci loolu waaye toog jàng ummahaatu kutub yi la jàng ci boroom xam-xam yi ñu jàngal la la kon loolu dama ciy fàttali rek ne baax na ga baax na ndax mën nga cee jàng bu dee téere lañ ciy jàngale mën nga cee jàng waaye bu dee lu mel ni conférence wala bayaan wala loolu mën naa am loo ci jël waaye loolu du am njàngale kon na ko kenn ku nekk bàyyi xel boroom xam-xam yi dañuy wax ni al ilmu yu'ta wala ya'ti xam-xam dañu koy doxal dox jëm ca waaye doo xaar mu ñëw fekk si la wala bu la fekk si it barke ba du bari kon Moussa pare na pour jóg dem jàngi xam ngeen ni yàlla Moussa rey newul ci moom yonent la ci ulul azm la bokk mu ngi wax ak boroomam waxtu bu mu bëggee wax yàlla ne ko am na ku la raw mu ne pare naa pour dem jàngi ci moom kon danga nga cay déggee ni ku la raw demal jàngi ci moom même ki la rawul sax su toogee jàngale nga déglu danga ca jàngee loo xam ni moom xamu ko ca woon kon du la tardeel du la suufeel bi Muusa laajee yàlla loolu a ah, borom bi ne ko taaxudu maaka xuutan fa tajcaluhu bi miktal fa xaysu ma faqadta alxuuta fa huwa samma na ko sama waa jooju ma lay wax soo ko bëggee gis utal jën nga def ko ci bërëb demal foo demee ba ñàkk jën ba rek foofa la waa ji nekk kon lu muy tekki ndeke xam-xam lu mu sori sori jar naa dem uti ko fu mu nekk ndax boo demee rek dana la amal njëriñ insha allah yonte yàlla Moussa ndeke ku bëgg xam-xam la ku naw xam-xam la ndax xam-xam moo ëpp solo lu ñuy ut ci kaw suuf majmaul bahrain ñaari géej yi daje yoo dañu wax ni majma bahr faris wa room la diggante perse ak ruum seen ñaari géej yooyu ñu ne fala am na ñu ne tanja la waaye bi jiitu bi majmaul bahrain boobu mooy wax ji gën a wér mbokk yi Moussa dégg na wax ji ñor na ko comme dani woon maa ëpp xam-xam te am na ku ko ëpple kon nag jot na mu dem seeti ko ko ëppale kon da lay woon ni bu la nit ëppalee nga jël ci moom ëppaleetu la kon Moussa pare na pour dem jël la nekk ci waaja xamagul tuuram xamagul kan la lu ñu ko jox tegtal Moussa alayhi salaam daa di woo xalem boobu moom la borom bi naan wa id qaala muusa li fataahu laa abra xatta abluga majmaa albahrayni aw amdiya xuqba muusa wax boobu nga xam ni turam mooy yusha ibn nun ne ko nag du ma deñ di wëri kii ma soxla ba gis ko walla ma dox ay ati at mooy téeméeri at xuqba mooy téeméeri at bi mu ko defee nag xale bi ne ko damay ànd ak yow mu ne ko waaw yow lay àndal ñuy dem mu ko defee nag Muusa amoon aw jën ñu lakk jën wi defar ba mu baax xale bi téye ko ñu war a ànd ñoom ñaar am na it ñu ne déedéet jën bi lakkuñ ko defaruñ ko noonu rek la jën la daal dee na wala deewul allahu aalam waaye daal jën la bu fekkee lakk bi la noonu la xale bi yenu ko Muusa jiitu dox di jëm fu mu xamul lan lay uti lu mu xam kon mbokk yi xam-xam lu am sam solo la bépp xam-xam nag am na solo xam-xamu àdduna xam-xamu diine xam-xamu diine xam-xamu àdduna yépp ñoo baax boo ci am rek bis dina ñëw nga xam ni am na solo ndax nit ñi dañ koy soxla nee ñuy dox ñoom ñaar topp àll bi jëm seeti majmaul bahrain nee bi ñuy dox ba sonn dox nañu ba sonn bi ñu doxee ba sonn nag wéeru ne dañuy noppalu bi ñu tëddee di noppalu Muusa nelaw fa fa mu nelaw noonu di noppalu xale bi moom mi ngi toog am na ñu ne xale bi nelawul bu nelawee it ala kulli lu mën a nekk la bi Muusa nelawee ba tiit ci nelaw bi mu tiitee ciy nelaw tëb bi mu tëbee ne aca nañ dem am na ñaari wax yu boroom xam-xam yi wax ñaari wax yooyu mooy Muusa coono moo ko nelawloo nasab muy coono xale bi moom ajab la ame yéemu lan moo ko yéem jën bu ñu lakk ba mu baax teg ko xale bi sonn na nelawul jékki seen jën bi fudd tëb rek ne baras ci géej gi xale bi nag toog fa ñemewul yee Moussa ñemewul dara waaye mi ngi commencé waaw jën bu ñu lakk mu def nii waaw bi mu waxee loolu Moussa tëb bi mu tëbee ne ko nañ dem nañ dem ci kilifa bu ne xale nañ dem nañ dem xale bi far fàttale rek topp Moussa fàtte ne problème mu jën ba bi ñu doxee ba xiif ñëw Moussa ne ko aatina gadaana laqad laqina min safarina hada nasaba da ko waaw indil lekk bi nag bu dee lekk nag dëgg-dëgg kon jën bi dañ koo lakk xanaa jën bu ñorul kenn du ko lekk xanaa kon bi Muusaa ne xale bi indil sunu añ bi coono ñëw na sonn nañ xale bi xel mi dem ca jën ba ne ko laa ila Muusaa mu a naa mu ne ah, man day fàtte naa jën ba seytaane rek moo ma ko fàtte loolu wa ma ansanihu illa seytaan mu ne ha mu ne ko gis nga jën ba fa ma toogoon dama jékki rek jën bi baraf rek yolox yolox dugg ci ndox ma tiit foog ni Moussa dana ko wax dara <laughs> Moussa ne ko daalika maa kunnaa nabghi man lu ma doon wër foofu la nekk kon nañu tourné ittey Moussa tax na talatul lekk bi xiif la ko waxoon indi ñu lekk xale bi ne ko man jën ba dafa far dund dem fekk la Moussa soxla mooy xam-xam Moussa fàtte na lekk moo tax kuy jàng lekk du la sonal ku bëgg xam-xam lekk du la sonal sama benn sëñ daara noon na taalibe balaa mokkal yax yi wow koŋ koŋ koŋ koŋ koŋ xiif ba bëgg a dee xam nga boo xiifee doo nelaw boo déggee taalibe du nelaw ñàkk lekk dong la doo nelaw léegi nag Moussa ne ko zalika ma kunna nabgh ñun loolu lañ bëggoon ñu tourné bi ñu tourné borom bi ne na fartadda ala athaarihima qasasa ñu tourné seen ginnaaw nag di settantal fa ñu nekkoon ah dañoo dem a dem ba ca bërëb ba gis fi jën bi baramu dem loolu la borom ne wattaxada sabilahu fi lbahri ajaba léegi jën bi dem na Muusa agsi na ba ci bërëb bi taxaw comme yàlla noonu na ko ci majmaul bahrayni la sama waa ji nekk Muusa téen taxaw nag di xool allahu akbar di xool ba ci yàgg seen benn waay bu ferenkulaayu ci digg ndox ma kookaa gën a àgg ñëpp kooku moom kooku moom kooku moom keneen la moom waaw ferenkulaayu ci digg ndox ma allahu akbar Muusa xool ko bi mu ko xoolee daa di koy nuyu ne ko assalaamu aleyk wa rahmatullah maa ngi lay nuyu xam nga li ko xudar njëkk a tontu wa anna bi ardika salaam moo ndax fii am na salaam ça veut li ñu borom xam-xam yi nee nañu wax ji foofu mooy foofu du bërëbu nit kon nuyante foofu bëriwu fa moo tax mu ne ko ndax suñu bërëm bii am na salaam waaye ala kulli haal lu mënta am daal wax ji loolu la junju fay na ko nag ndax xel mënta nangu nitu yàlla ku mel noonu yàlla yabal ko Muusa Muusa nuyu ko te fayu ko loolu mënul nekk kon fay na Muusa nuyu ba pare ne ko man anta waaw yow moomu di ma nuyu yaay kan Muusa nga ci tefes gi te montagne bi taxaw xudar ma nga ca biir ndox ma ferenku laayu ñoom ñaar seen daje du yomb nag xam naa ne bu Muusa mënut ndox du fa àgg xudar siggi ne ko yow la kan mu ne ko ana Muusa man may Muusa mu ne ko ah, Muusa banu Israil kon yay Muusa banu Israil Muusa ne ko waaw mu ne ko fama sha'nuk luy sa mbir Muusa ne ko jiitu li tuallimani mimma ullimta rushda mooy juróomeelu mbir bi te ma ñëw ngir nga jàngal ma ci li nga xam waaye njub laa bëgg nga jàngal waxuma nga jàngal ma gisaane gisaane du njub waxuma nga jàngal ma seet seet du njub waxuma nga jàngal ma njabar njabar du njub moo tax njabar kenn waru koo jàng kenn ku jub du jàng njabar loo xam ni mbon la boo ko yoree boo meree bon moo tax kenn waru ko jàng moo tax mu ne mimma ullimta rushda looy jàng ci nit na nekk lu baax lu bon boo ko jàngee rek ci musiba léeg-léeg nga dégg nit ñi nag xam-xam jar naa am lépp loolu caaxaankat yee koy wax am na lor boo ko xamee ci lor la la jëme bi mu waxee loolu ne ko amaa yakfiika anna tawraat bi yadayk wa anna alwahyi yaatika yaa ko Muusa xanaa doy lu woo yow yaa ngi am tawraat mi ngi ci sa ñaari loxo wàcce jóge ci asamaan yàlla jox la ko yàlla di wax ak yow xoolal xudar tontu loolu Muusa am nga tawraat yàlla di wax ak yow boole ca Moussa ne ko waaye man dey dama laa soxla Xudar ne ko inna lii ilman laa yambagi laka an taalamahu man de am naa xam-xam boo xam ni mënoo ko xam wa inna laka ilman laa yambagi lii an alamahu xam nga loo xam ne ma koo xam loolu mooy ngor mooy juróom benn lu mbir loo xam-xam am loo réere seulement si ita bu la neexee de waaye xam nga lu ciy topp ajib ma si ita rek waaw ah, waaw laajal lu la neex tontul la neex xam lépp kenn mënu ko il faut mu am loo xam xafista shay'an wa gaabat anka ashiyaa'u bi mu waxee loolu nag musaa ne ko waaw man day daam lu ma yëkkati wax ko ko seen diggante ñoom ñaar fi ñuy waxee am benn picc bu naaw ne ci ndox mi cofet dara xam naa jën la këf walla dara xam nga picc yi dañ koy def bi mu cofee dara yëkkati rek mu am lu toq ci géej gi xudar ne Muusa ne ko wallahi ma ilmi wa ma ilmuka fi janbillah illa kama axada hada tair bi minqaarihi min albahr ne ko sama xam-xam man xudar ak sa xam-xam yow Muusa bu ñu leen nattoon ci xam-xamu yàlla mi ngi mel ni géej gi mooy xam-xamu yàlla li picc bi tànk mu toq mooy suñu xam-xam ñun ñaar wa maa utitum min al ilm illa qalila allahu akbar ñooñu ñoo delloo xam-xam ca boromam Moussa ne ko dama bëgg a ànd ak yow nga xamal ma ci la yàlla xamal Xudar ne ko <laughs> yow matooma taalibe matooma taalibe mënuma laa jàngal mënuma laa jàngal tekkiwul ni amul xam-xam waaye Xudar li mu bëgg a wax moom xam-xamam li mu laaj ak li Moussa bëgg dafa am wute loolu mooy seen problème mu ne ko matooma taalibe Moussa ne ko lu tax lu tax mu ne ko ah boo bëggee ànd ak man dey cell la ngay takkoo waaw man may sëriñ boo xam ne lu ma def bul laaj moom la ñu naxee sénégalais yëpp gars yi kenn du laaj sëriñ si dara sëriñ si lu leen neex <laughs> moo ko sañ rek ngay dégg moo ko sañ sëriñ yëpp fii fii ah mooy juróom benneel bi dañuy nax taalibe yi yow nga nekk taalibe toog sëriñ bi def tooxi doona ñeme woo ko koo laaj sëriñ bi def da même bu dee lu baax ak lu bon laaj ko ko yonent bi da doon def saxaaba yi ne ko lii lu tax yonent bi tontu waaye boo laajee suñ gaaw ne da nga dofa da ñàkk teggin bëgg kii sëriñ bi maa sëriñ bu jàngul moom buñ ko kenn laaj loolu moo tax gars yi taxaw ba kenn laaj waaye bu sëriñ bi demee ngeen ko <laughs> foo ko teg <laughs> kéemaan la de moom kay mbir yi daal mu ngoo ko rek moo tax xam nga sëriñ bu dul jàngale sama sëriñ daana ko wax daara bu amul daa daara bu amul daa daara booy dem amul daa amul pilim amul jàngale taalibeeg sëriñ yi rek li ngeen séq daal sant moo leen boole nga ñëw ne ko maay sa taalibe mu ne may sa sëriñ ah wax dëgg yàlla boobu daa yomb nag waaye sëriñ dafa war a toog di la bindal di la jàngal boo xamul mu xamal la nga gis ko muy julli di jaamu yàlla loolu mooy sëriñ waaye nga toog ba mu neex la ni diw diway baayam diw diwa ko jur mooy sama sëriñ kooku yaa ko soo yaa ko rek loolu moom ku nekk mën na ko moo tax sëriñ si bëri léegi moo tax sëriñ si bëri léegi bi mu ko defee Muusa ne Xadir sa tajidu nii incha allah saabiran ma ak li nga ma wax d'accord naa danaa muñ duma la laaj dara ah Muusa wax nga loo xam ne yombut de li tax yombut mooy booy jàng boo gisee loo xamul danga ngaa war a laaj loolu moo jaadu lii fan la tege loolu moom danga ko war a laaj te gis nga yàlla ñu yàlla dimbali defal ñu tawfiq yàlla nañu yàlla yërëm dama toog ci benn ngénte ñu nekk ci ngénte lii man lañ bëggoon ma tudd ma ñëw moom benn kilifa bu ñëw ndeysaan kilifa ci ñu baax ñi nag wax dëgg yàlla xam naa ko dëgg-dëgg moom xam naa ko xam naa ko ci bëgg jaamu yàlla ak góorgóorlu gaañu na yàlla na ko yàlla yërëm wax dëgg yàlla ñu présenté ma ko mu nuyu ma foofu ñu waxtaan mu xëcc mati wetam ñu dend bi ñu indee xale bi ma jox ko mu ne ma mukk yow yaa koy tudd man sëriñu papaam laa may kon moom yaay sëriñam ma ne ko waa ah, mais man ñun ñëpp yaay suñu sëriñ yëkkati jox ko ñu tudd ba pare jékki rek benn waay agsi frère ki doon tudd la waa ji ndeysaan nattu bi ko yàlla nattu dafa màndi muy dugg ci biir nit ñi muy yajoxoo daanu ci biir nit ñi gaa yi kaas papam jànni ko kii waru leen ko fi woon indi bon bi nga xamante ni màndi rek léegi sëriñ bi waxtaan ba caag ne ah li ngeen koy xasee day am na ñu ma gis moo leen tane gars yi ne tekk mu ne li mu def moo tane tux ma ne ah ah mu ne li mu man di moo tane tux ma ne ah problème fii de bu ma toogee noppi continuer lëndëm lëndëm dina am te danañ jam moom kay rus naa ko lool waaye naa takk fit wi rek naa takk fit yi ma ne ko ah, waa sëriñ bi dégg naa nga wax lu yéeme te ñun ay taalibe lañ dañoo bëgg xam-xam fu ñu dégg laaj ñu bëgg nga tasal ñu ko mu leer ci bopp yi mu ne waaw xam nga sàngara aram na kono poon moo gën a bon sigaret moo gën a bon ma ne ko man dama foog ni sàngara ak cigarette kenn waru leen nattale donte cigarette xaraam na ci xiyaas lañ koy teg ma kon ci xiyaas lay dellu waaye sàngara aaya alquran moo ñëw yàlla moo ne innamal xamra wal maysir wal ansaabu wal azlam rijsun teg ci ne fattani bu waaw lu ñëw ci texte te yàllaa ko waxal boppam ndax dina nurook loo xam ni moom yàlla tuddut ko ah fala fala ngeen te li soppiku de ngeen teli ngeen teli commencé soppiku moom kay ñaq na ñaq naa ñëpp ne teg gis nga suñu dàqante boobu maak moom dañoo jékki rek benn waaye dagg waxtaan bi xam naa ne ku muus la dañoo jékki rek waaju yuuxu way takk rek ma noppi mu noppi foofu la jaar daal ba affaire jeex léegi nag li ma comprendre affaire bi bi sëriñ bi ñibbi ma seen waaji ànd ak sëriñ bi ma ne ah kii da ci doon génne <laughs> laa toog ba jamono noo ñii ñooy ngand nii la ko ci génn mais sëriñ bi ñaq na tooy xib waaw mu naan xam nga ku tedd ki borom ki tarikam nangam nangam ñoom dañu ko wag ni pour moo gën a kii nangam ma ne ko déet góor gi loolu moom bañ naa rus naa la lool borom xam-xam nga waaye loolu moom wérul non xam naa mu ree nam yéen xam ngeen kale yi du ngeen kam loolu kam-kam bu bu làkku la ma ne ko man li ma wax lu feeñ la alquran la alquran la xam nga gis nga xel bu ñu dox ci xelu nit ñi dëgg dëgg dëgg cigarette ak pool mënta gën a xaram sàngara loolu mooy dange bi bu fekkee nit ñi dañuy wax te kenn sañu leen a laaj rek lañuy def kenn sañu leen a laaj laa ilaha illa mbokk yi bi Muusa waxee loolu xudar ne ko ah man dey munoo ànd ak man di muñ Muusaa ne ko mëñ naa ko xudar ne ko looy muñee loo xamut looy muñee loo xamut waaw wa kayfa tasbir ala ma lam tuxit bihi xubra xam nga booy muñ dara da koy xam yow xamagoo ci lan lañu jëm ba nga ne mën naa muñ ah noppi Moussa ne ko léegi daal sa tajudu di inchaa allahu sabira da nga fekk ma nekk ko muñ ah xudar ne quoi kon baax na comme wax nga loolu wér ko ci yàlla amul problème léegi nag boo ma toppee man bu ma laaj dara lu ma def sa yoon newu ci heure bu paree danaa la ko leeral xam nga bu doon gars yi noonu la ñu def sa yombal mais nga bëgg ñu teg ndax taalibi naan la taalibi day mel ni néew ci kanamu sëriñam néew bu ñuy sang xam nga néew du wëlbatiku du laaj du def dara moo tax gars yi comme néew bu ñu toogee ci wetu gars yi nii sëgg rek kenn du nooyi parce que dañ nax ne la bul laaj bul def dara fekk loolu dañ lay nax dañ lay léere diine dañuy laaj su leerul nañu ko leeral bu ko defee nag xudar ne ko kon baax na wàcc dox musaa séen ko mu dox ci kaw tefes bi xam naa ne su ma doon Moussa bi mu ñëwee laa ko ne yàlla wax na dëgg yaa ma mën waa waaw ndax dox ci kaw géej ak fa nga toog dox ñëw fekk ma fii yàlla wax na dëgg yaa ma mën waaye Moussa xam-xama ko itteel Moussa ne booy bi léegi mën ngaa dellu mën nga dellu booy bi dellu bi mu ko defee nag mbokk yi Xudar taxaw ak Moussa foofu nag ñuy waxtaan ndeke foofu buntu tefes la kee la quai de pêche la mu ko defee nag ñuy dox jëm ci fi gaal yi teer bi ñu agsee rekk gis benn gaal bi ñu gisee gaal gi muy gaal gu rafet lool ñu ñaan ne dañoo bëgg a jéggi dem bërëb sàngam ah xanaa ma jéem a gaaw rek waaye du yomb de <laughs> ma jéem a dem bërëb sàngam bi ñu leen mayee Moussa dugg xudar dugg nit ñi dugg bi ñu duggee gaal gi dem ba ci yàgg xudar gerte yem ci sémmiñ yëkkati ne pëq gaal gi bënn ko bi mu ko bënnee hee Moussa tiit Moussa tiit ne ko axaraqtaha li tuxriqa ahlaha yow ñu ngi ñu dimbale amuñu paas nga bënn gaalug jàmbur xodar ne ko yaay sëñ bi lu ma la waxoon <laughs> Moussa ne ko baal ma damaa fàtte <laughs> baal ma dama damaa fàtte ndeysaan allahu akbar laa tu aaxir nii bi maa nafiitu dama fàtte waaw xam nga li muy wane tempérament Moussa am na loolu mënu ko muñ waaw munu ko muñ mukk Moussa nawet noppi a ah, ñuy dem dem ba ci yàgg wàcc bi ñu wàccee am fu ñu doon dem ay xale yuy fubal ci mbedd mi di fo ñu baal ma ci baat fubal bi ma wax sax ay xale yuy fo jékki am xale bu daw ku daan ne ko tareex yenn ba ci kaw teg ci suuf ren di Moussa waaw kay yow lu tax nga rey nafsan zakiyatan bi xayri nafs nga rey bakkan bu sell bu deful dara te reyul kenn yow de laqad ji'ta shay'an nukra indi nga lu bon li nga def de moom kenn waru koo def ko daan ne ko saawaay lu ma la waxoon lu ma la waxoon Moussa tiit gor bu amee kersa ñaari yoon du ñett loolu moo tax Moussa ne ko in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusaaxib nii waaye Moussa tàngoor a ko jàpp waaye mënoon naa tey ne ko su ma waxaatee dara laaj la rek kon nag dëgg dëgg charte yi nga wax mënuma ko xudar noppi continuer ndax Moussa moom xool baa ngi nux nuxi bënn gaalu jàmbur waxatuñu mu rendi nit non kii garaaw na ah dox dem ba ci benn dëkk ñu ne Intakiye la ci turki nee bi ñu duggee ci dëkk bi njolloor xiif dugg ci kër yi ñaan lekk gaa yi bañ gaa yi ñu ne waa Turquie dañuy bañ wax jooju nag nee nañ baat bi ñu gën a bañ mooy fa abaw an yudayifuhuma ñoom dañoo wax daa waroon nekk fa ataw an yudayifuhuma waaye laa fa abaw waaw bi ñu ñëwee pour ñu may leen lekk gaa yi bañ nga dugg ci quartier koo ñaan lekk mu bañ nga séen fa miir bu daanu danga koy tabax xudar séen miir bi ne Moussa rootal ndox comme mooy apprenti bi Moussa root ndox waaw taxaw commencé muul yëkkati muuli di defar <laughs> Moussa xam naa xol bi laaj yow ñaan nga lekk fii ñu bañ nga bëgg a tabax <laughs> dëgg-dëgg sëriñ bi daa doy waar nag Moussa ndeysaan gis xudar di ko defarloon <laughs> mu ne ko law shita la taxafta alayhi ajra sama patron nga nag waaye mënoon nga fayiku lii fayikoon journée sax au moins ñu am lu ñu añee xudar ne ko hada firaqu bayni wa baynik yaa chartaloon nii boo waxaatee lu sa yoon nekkul ñu tàqali ko te duggaat nga lu sa yoon nekkul waaw léegi nag comme maa la waxoon mënoo ànd ak man nga ni naa la muñal ñu ànd ma def lenn nga juum baalu ma baal la ma defaat leneen nga juum nga ni kat su ma ko defatee ñu tàkkali ko kon fii la ñuy yem man ak yow waaye nag doo demee noonu ndax waroo dem ci kumpa il faut ma leeral la lii am lan mooy cause bi lan moo indi lii ah bi mu ko defee nag xudar commencé di ko leeral ne ko gaal ga ñu yéegoon man ak yow ñaari xale ñoo ko moom te xale yooyu dañ ciy liggéey te xale yi miskin lañu ñu ne waaw juróom-ñaareel bi ñëw ma bëgg a yàq gaal gi sikkal ko tekkiwul yàq ma sikkal gaal gi lan moo tax ma di ko sikkal dañoo am buuru dictateur buur bi ci dëkk bi ku yore lu baax mu nangu ko moom ko lu bon li mu bàyyee ko miskin yi te xale yi seen gaal bi ni mu baaxee bu ko waa nguur gi di gis di ko nangu te xale yi dootu ñu am lu ñu lekk du ñu am lu ñu liggéeyee ma bënn ko bu ñu ñëwee xool ko bàyyi ko fi xale yi am lu ñu liggéeyee Moussa ni seet tiit tiit tiit ah waaye dëgg dëgg nag li nga wax ni xel la kon tontu Moussa mu ngoog li taxoon xudar bënn gaal gi loolu la ñun nag léegi ñun bënn ñu suñuy gaal puusuñu suñuy oto dañu naan wàcc leen ma jàll waaw te moom bu président ñëw il faut nga wàcc dëgg la nag ndax mooy son excellence wàcc leen jàll waaw ñëpp wàcc mu jàll dem soxlaam ñun ñoo ko ko may nag ndax ñun ñoo ko ni yaa ñu jiite loo dox pour ñun la kon jaaduwul sax ngay dem ñun ñu taxaw di la baare loolu moom xel nangu na ko wax dëgg yàlla gis nga buur bu doy waar yi muy indil dëkk fitna yu mel nii lay doon moo tax xudar ne ko ma bañ xale yi am problème moo tax ma bënn gaal gi ndax ñoom dañoo bew te mbew ci kéefër lay yóbbu nit waaw mbokk yi bi mu ko defee mu newaat Muusa xale bi ma rey mooy juróom-ñetteelu tomb bi ne ko xale bu góor bii ndeyam ak baayam ñu gëm yàlla lañ fa abawaahu muminayn gëm nañu yàlla lool waaye dañoo am nattu doom di nga gis ku baax lool sikkam ci doomam la ndax doom day dofloo day tëxitloo day nayloo ku la dàqa maye bi muy nekk célibataire xaar ko ba moom am jabar boo amee boo ko ñaanee rek xet mi commencé dem ci milen yeeg poudre yi xam naa bàyyil ba fan yi bu amee doom nag beneen problème mu ne xale bi dafa àgg ci ndeyam ak baayam fu sori foo xam ni su ñu deful ndànk xale bu dugal leen ci mbew ak kéefër ndax lu seen doom bëgg lañuy def léegi nag mu ne ñu bëgg newul fa arattu de bu ne woon fa arattu mooy borom coobare moo tax mu ne fa arat aradna an yubdilahuma rabbuhuma xayra bëgg googu nammeelu yàlla la moo tax borom bi bëgg leen a utal leneen ngir xare bi jëf ko Moussa ne ko ah, wax nga dëgg de mu ne ko miir bi nag bien vrai ñëw nañ mayuñ ñu lekk waaye dafa am lu gën a am solo lekk mu ne ko ah mu ne ko miir bi daanu dafa am ñaari xale yoo xam ne jirim lañ màggaguñu seen bàyyi da leen a bàyyil alal boo xam ni or la mu defar ko alluwe denc ko pour ñoom bu ñu màggee ñu jëriñoo ko mu gasoon ko suul ko bi mu ko gasee suul ko ci sësu miir bi fondation fa la ko def miir bi daanu su yàggee miir bi daanu taw di taw ci kawam dana raaf bu raafee bu xale yi màggee du ñu xam fu seen alalu baay nekk moo tax ma yëkkatiwaat ko ngir mu nekk loo xam ni dina taxaw su xale yi màggee jël seen yëf Moussa lii nga mënul woon muñ mooy ñett yi ma def ah léegi nag fii la wax ji ñëw wax ji fi muy ñëw mooy Moussa maanaam ne ko ma faaltuhu an amri foofu rek la ñëpp war a dellu lii <laughs> defuma ko ci sama coobare de man jaam rek laa xudar jaam la du yàlla ñu bëri jàpp ni xudar shariba min maa il hayaat deewul ne dégg gars yi ñoo naan la xudar mi ngi dund ba léegi nangam nangam nangam nangam shariba min maa il hayaat nga dégg koo xam ne moom ngay dem man kii maawul hayaat nangam nangam ku nekk di wax xudar du woon suufi bu yeboo nañ ma mere ndax moomuñu baatu suufi xudar du woon suufi musu koo doon xalaatu ko sañu koo doon musu ko doon du woon loolu nitu yàlla la bu yàlla may ndax may ga fa yem xam waaye ndax am na keneen ku mel ni moom xam waaye ku mel ni xudar du wanewu ku jóg ne man la ñu ne la du yow toogal waaw kon nag bu leen ñu fi ndax naan di way xudar di way nangam déedéet kenn du fi xudar xudar daal loolu la yàlla namoon ci moom digganteem ak Muusa beneen bi mbokk yi ñu yëg ni jaamu yàlla yi ci suñu biir ñu baax ñu ngi ci ñu ragal yàlla ñu ami daraja ñeneen a ngi ci noonu la yàlla jaxasee ay mbiram waaye gis nga ku woote woo dara rek newul ci yow salafu saali musuñoo xam woote wu musuñoo xam vante wu musuñoo xam xëcc musuñoo xam clientisme musuñ ko xam ñoom lu ñu doon def dañ ciy ragal yàlla kon loolu mooy jàngat yi ñu doon tiire ci dund xudar waxtu yi xam naa gaajo bi ngi may xool lu bari ma tënkaloo rek donte li ëpp solo wax nañ ko mais li ñuy jàngat ci dund xudar mooy xudar jaam la génn na àdduna ku ne deewoon deewul indi lay man de am naa lay alquran nee na yàlla nee na yonent bi wa ma jaal naa li basharin min qablikal xulda du xudar moo mag yonant bi yàlla ne na ko ñi la jiitu amul ku des dee nañ kon ku ne xudar mi ngi dund ma ne la indil ma lay dégg naa nag ñu koy woote woo moo tax ma wax loolu ñi koy woote woo naan xudar mi ngi dund ku ñeme indil lay man de nee naa leen dundut dundul dundul xudar mi ngi ci bërëb sàngam day toog ngay dégg kurusam di tàcc tàcc day nàngam dara ay jinne yi tàcc tàcc foofu da ngay tàccu ànd ak ñoom jinne yi dañuy nax nit ñi donc incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa ñu jëm ci tontu question yi incha allah.